Euh, ci kàttanu borom bi waaye nag dañuy daal di sant yàlla bu baax julli sëlmal ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunu ñaari waajur bu wér a wér gërëm sunu wasila waaye gërëm leen yéen ñi nga xamante ni saa su ne yéen a ngi fësal seen cofeel jëmale ko ci ñun doore ko ci malade yi tëdd ci hôpitaux yi ak ñuy weyale seen i jàngoro ñëpp ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñu delluwaat ci seen activité ñi caabi féete ginnaaw nekk ci bërëb bi yarukaay ñu ñaanal leen yàlla génne leen fa dara bañ leen faa dugalati waaye saa su ne rek xel sunu dem ci way dawlu yi ñu di leen ñaanal yàlla atte leen ci yërmandeem jéggal leen seen i bakkaar tàbbal leen ci àjjana yi gën a kawe ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kilifa diine fu ci mën a nekk rek yëgal ne fekk nañu la fa na la jàbb loxo nuyu la ngën gi nuyoo sukk suñuy oom ci sa kanam tàllal suñuy loxo sàkku ci yow ñaan gannaaw ba ñu la ñaanalee yàlla yàggal la fi nga yàgg ñaanal réew mi kilifa aada itam naka noonu ñu nuyu leen ziyaar leen ñaanal leen jàmm ndax seen jàmm nag bokk na ci suñu jàmm kon yal yàlla defal leen jàmm sottal projet yi fépp fu ci waay mën a nekk rek ci biir Sénégal am ci looy yëngu positivement yëgal ni maa ngi lay nuyu di la ci ñaanal jàmm di ñaan yàlla yàlla yokk xéewal gi yàlla barkeel njaboot gi ba bépp jur boo xamante ni yaa ngi doon xëy nga mën a wàcc nag njaboot gi aw la ndax loolu rek moo ñu tax di sonn bitim réew itam ñu bàyyi leen xel la leen fa yóbbu itam yàlla bu ci seen yaakaar waaye ay bi réew yooyu yàlla buñ ci dégg benn yoon dara dara dara yàlla defal leen jàmm sutura ak xéewal dellu siwaat nag euh, talaata ji ni ñu leen ko waxee nag dem fu sori ndax dama leen wax ne leen émission kër gi yaatal rek lañ ci bëgg te fu ci waay mën a nekk rek ñu dégg sa xam-xam war nañ laa mën a indi euh, àndandoo ko ak yow waxtaane ko su ko defee rek kenn ku ci nekk jariñoo ci kon comme lépp ñëpp la lu nekk ku ne ngi ci biir te wax laan leen ne décor bi dafa yaatu ay chaise chaise la te ku ne xaj na ci te macha allah fu ci waay mën a toll rek caméra mën na la faa fekk jël la kon dañuy daal di yaatal kër gi waaxu ba fi nga xamante ni mooy diwaanu Louga jëli fa oustaz Babacar mu euh, diwaanu Ndar euh, jëli fa oustaz Babacar fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni rek mooy diggante jëkkër ak jabar jëlin baak yarin ba ba nga xamante ni bu ñu demee ba tolof tolof am kenn du mën a demal sa bopp ndax euh, mbir ma dafay daal di doon loo xamante ni fa mu tàmbalee moo moo sori gannaaw nag racine dafa am solo kon reen ba ca la ñu jëm tey jii kon oustaz Babacar maa ngi lay nuyu la bàyyi nga nuyoog waa Saint-Louis salaamaaleykum wa rahmatullah soxna si Mbayang ñu ngi lay gërëm. di la sant. di nuyu suñu mbokk yi ñu fi fekk. rawatina li ko tàmbalee ci kilifa kër gi. ba ki gën a tuuti maqaama ci ëtt bi. ki am dayo yàlla rek moo ko xam. dëgg waaye ci wàllub liggéey dañ naan ki ci gën a tuuti maqaama rek. kon ñu ngi nuyu jëmm yooyu yëpp nag. te di tàmbalee rek sant yàlla te mooy alhamdulillahi alqaili fi muhkami tanzili wa ma ataakum rasulu fa xuzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu wa qaala aydan wa ma yantiqu an ilhawa in huwa illaa waxin yuuxa wasalaatu wasalaamu ala man ulsira rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain uxayikum bi taxiyati lislaam wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum asalaam wa rahmatullah. ñu ngi dolli di sant yàlla di ko màggal. Mm. di nangu kennam gi mu doon. Mm. di sàkku xéewalam ak muccam yàlla na nekk ci ki nga xamante ni moo ko yónni mu doon di ci ñun. Mm. ba pare dellu dëggal ko it nag moom yàlla ji ko yónni. ni sama waa ji lu mu leen indil téye leen waaye lu mu leen tere it baleen dëgg la delluwaat dëggal ka ni sama waa ji du wax ci bànneexu bakkanam lu mu wax man yàlla màkk wax loo kon képp ku yàlla garanti rek loolu doy na sëkk te mooy jëmm ji yàlla garanti kon lépp lu ñuy wax di ko sukkandiku lu weesu alquranul karim kàddu yi génne ci lemminu yontu yàlla muhammad mu jàngal ko ay àndandoom ay àndandoom jàngal ko seen ay àndandoom muy law ba agsi si ñun kon ku weesu loolu rek boo moytul daa daanu wala daañu la yedd kon lépp lu doomu aadama di wax wala mu ciy def war na sukkandiku ci téere yàlla ji waaye sukkandiku it ci li nga xamante ni mooy ki yàlla yabaloon ci ñun yónni ko dëggal ko yónni gi mu doon te mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon daal ñu ngi delluwaat di leen nuyu mhm. di leen sargal ñu ngi di sant mhm. ci teraanga jii ngeen nu defal ndeysaan di ñaan yàlla nag yal yàlla jubal suñu làmmiñ allahumma yaatal suñu dënn allahumma ci daraje tu bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam muy lu am solo ñu jaajëfal ko ci nuyoo bi waaye yaakaar naa ne jaajëfal gi yaa ko yeyoo ndax nag euh, diggante Ndar ak dakaar dafa sori nga xëyee fa tey ci suba gi ñëw uniquement pour li la yàlla baaxee ci xam-xam nga jébbal ko askan wi nga xamante ni ñoo toog jàkkaarlook ñun di ñu seetaan yaakaar naa ni loolu ñun ñoo la mun la fay euh, euh, oustaz ñu jëkke woon ñu doore woon rek ci nattu déjà nattu la ñu doore woon semaine passé semaine bi ñu yëkkati entourage bi nga xamante ni moom moo wër ki li wër nit ki ñu nat ki ki yàlla teg nattu ban comportement la war a am surtout nag ba ci ëpp solo mooy diggante jëkkër ak jabar waaye nag yooyu yëpp balaa muy am dafa am yar boo xamante ni moom la ñu euh, diine di yar ba bu ñu demee ba tollu fenn fi sax am na loo xamante ni duñu ko ñeme ndax bu boobaa diine moo ñu yar ban façon yar la diine di yar nit diine balaa mu lay yar dalay jëkk tabax. da tabax da lay tabax. d'accord. xëy na nag nit ñi tabax ñi nga ko xamee. Mm-hmm. ci suuf ak mm-hmm. waaye tabax. mu mm-hmm. ngi ta si ci diine. mooy ci sosin. ndax amul lépp loo war a mën def yow doomu aadama. Mm. te ndigalu yàlla walla sañ-sañam. Mm. dugg ca dëgg la. ba pare nag moo tax mu santunu mm. wa maa umiru illa li yaabudullaha muxlisin man yàlla santuma leen lu may ngeen jaamu ma mm-hmm. waaye jaamu goog ngeen may jaamoo it nag dafa war a sell dëgg bàyyiwul nag suñu dund mm-hmm. ndegam douche bii ngay dem mm. te boo fay dem am kersa mm-hmm. boo génnee am kersa lala yàlla bàyyiwul diine bàyyiwul la massa leneen yàlla bàyyiwul kenn te ñu bari duñ ci bàyyi xel. te ñu bari nag duñ ci bàyyi xel. Mm-hmm. yàlla ci boppam. Mm-hmm. ca tàmbali ba ñuy boole. Mm-hmm. góor ak jigéen. baada aouzu billahi min asheytan rajim dafa wax yaa ayuha nnaas ittaqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin waxid wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa wa taqu llaha bihi wal arxam inna allaha kaana aleykum raqiban ee yéen nit ñi boo déggee nga dem ci sëy ñu naan il ma ñoo ngi xutba sëy bi mm. maanaam ñoo ngaa waar nit ña teew mm-hmm. léeg-léeg ilimaan nag di xutba sax ñu naan amin te fekk na amin ba amu sa amu sa yoon ndax ñàkk dégg sama kalaas ndax ñàkk dégg yaa ayyuhan naas e yéen nit ñi ittaqu ragal leen seen borom mm-hmm. Mm-hmm. allazi mi nga xamante ni xalaqakum moo leen bind mm. min nafsin waaxid ci benn bakkan muy maam aadama wa xalaqa minha zawjaha mu bind ci maam aadama moomu mm. soxnaam ba pare nag man yàlla ma dogal seen diggante ay góor yu bare ak ay jigéen yu bare mm. wattaqullaaha ragal leen yàlla mm. bii ci sëy bii ngeen di takk tey wal arxam ak mbokk gi nga xamante ni mu ngi ciy sos kon li ngay wax dafay daal di ñëw ragal yàlla googu ci sëy bi ba ci mbokk gi léegi dugg nañu ndax deretu jóob ak njaay bu jaxasoowee mbokk dugg na fomp mënatu ko dindi faxas déedéet dara dindeetu ko ñaasu kanam la mukk si àdduna dara du ko dindi nee na nag mbokk googu judd mm. sàmm leen ko na rafet nag mm. ndax inna allaha moom yàlla jooju mm. kaana nekk na aleykum ci yéen ba mooy ki nga xamante ni mooy moo leen di moo leen di mooy mooy veilleur bi mm-hmm. wala moo leen di régler mm-hmm. ci lii nga xamante ni jox na leen ko dëgg la kon tàmbalib sëy bi rek loolu daal dina dugg kon bu nit ñi demee woon noonu rek. Mm. bàyyi xel ci ba ceroog ba ñu naan xutba mooy mm. waar leen nit ñi. Mm. ci sëy bi buñ ci doon nafar rek kon dina am yu bëre yu nga xamante ni du ca am yoon. mais est-ce que ndijaay ji lañu war a waar wala ki ñaan si lañu war a waar. wala ndax témoins yi la ñu war a waar parce que jamono bi nga xamante ni ñu ngi ñu ngi takk sëy ba ñu ngi naan ku góor ko demal tëju fenn na nañ ma baal ca Paul Sabador rek ku jigéen ko moom ma nga ca salon ba toog kon ña ñuy waar est-ce que ñoom ñoom dinañ dégg waaraate bi. léegi jamono dañuy def ba. Mm. ñenu waroon waar duñ ko fekkee. loolu foofu laa jëmoon. waaw mm-hmm. ñenuy waar. Mm-hmm. duñ ko fekkee. dëgg la te ñay waare ñoom waaroon nañ leen ñoom. ndax ku si nekk ñoom ñay wayjur ya wala kilifa ya toog. Mm. ay borom kër lañu. dëgg la kon loolu ñuy jàngal soxna si ñoom ceroog bañ leen di may ñoom it jàngaloon nañ leen. Mm-hmm. wax leen ni nanu duggee nii ci sëy bi waaye nañ ko sàmmi nii. Mm-hmm. kon la ca doon yoon mooy ca tàmbali ba ñoom nan ca toogee woon ñu yedde leen ka keneen ku ciy dugg it noonu lay demee. Mm-hmm. donc ndono la de père en fils. ku ci toll rek ña la ca jiitu woon. say ancien jox la la ca nekk. te mooy waxu yàlla ji ñu wax la ka nga dégg ka oustaz doguma la euh, mbokk yi mën nañu participer ci émission bi ci 88 628 14 13 wala 00 221 33 841 23 34 muy numéro international bi su ko defee rek ngeen dugg root rek seen xalaat xutba boobu bokkul xëy na peut-être ci thème bi ndax olof lañ koy defee wala ndax al arab lañ koy defee xutba boobu xutba bi imaam bi ci aaya alquran bii ma jàng léegi. si mhm. suratu nisa. Mhm. moom la koy jàng. waaw waaye du tee boo ko jàngee ba pare. Mhm. ndax waar la. waaw ki ngay waxal ci arab bu déggul nga wax ko ci wolof. waaw. nga koy jàng ci arab bu la neexee wax ko ci wolof. wala nga wax ko ci arab ba pare wax ko ci wolof wax ko ci wolof bu la soob. ndax mbooloo ma la ñuy ña nga toogal ñëpp dégguñu la ngay wax. te amaana sax nga wax ko ci olof kese ñu ne imaam bi njàngam soriwul moo tax nangu la wax arab. loolooy catu Sénégal nag. soo waxee te waxuloo araab lakkuloo nasoloo baat xuuraloo dañ naan xamuloo dara. <laughs> ya dina ci am koo xamante ne sax dana ayotam kii xam naa ko nag ñoo goneendoo. loolu mooy wax ja. muy bàkkaar bu rëy. ba tey dëgg la. yàlla nag ba buy def <laughs> du tàggoo déedéet faalun li maa yurit mm-hmm. lu ko soob rek lay def wallahi wallahi kenn ndaala muy def déedéet lu ko neex rek lay def moom lay def te kenn xool ndaali yow si sa bët xool mu tilim mm. waaye moom yàlla moo gën a xam kenn ku nekk ndaala set waaye jamono bi nga toogee. waaw war a wax. waaw yow wax rek moo la war. après li ci des nga bàyyi. li ci des nga bàyyi. d'accord. ñu balligu anni walaw aaya. Hmm. moom la sunu yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam jottali leen ma yónnent gii ma yow yàlla yónni. Hmm. donte aaya hmm. waaye aaya ba it ka nga koy jox. foog nga leeralal ka pour mu mën ko dégg. mooy tax mu xam ka su dee naar nga wax ko ci naar su dee pël nga wax ko ci pël bu dee wolof nga wax ko ci wolof mu xam ko bu baax. mu jeex. ndax ñàkk xam loo xam. moo gën ñàkk xam. loo xamul lu ne. fooye ko waaye boo ko xamee téye ko. te lislaam diisul. te ko xam xamul tooñ. dëgg la te xam nag la lislaam njëkk santaane. ndeysaan yaarifuuni qabla an taabuduuni. Mhm. fa in lam taarifuuni fa fa kayfa taabuduuni. Mhm. xam leen ma. Mhm. ndax xam soo a jëf moo gën a wóor. su ngeen ma xamulee ana naka ngeen may jaamu. moo ma jaaxal mooy wax ju jiitu ja amuloo lenn looy defal yàlla te yàlla bàyyi ko ak yow. Hmm. dama ni la demub duus bee ca gën a doye di te yàlla bàyyiwu ko ak booy dugg am na looy wax te booy génn am na looy wax hmm. kon des na leneen ak leneen ak leneen hmm. lekk googu nga yóbbu ca duus ba am na looy wax balaa nga kaa lekk boo ca paree am na looy wax yére bi nga sol am na looy wax daal kon yàlla bàyyiwu la yow doomu aadama déedéet lépp la ñu accompagner dafa la topp yow doomu aadama bàyyiwu laa nag ak sa sago dëgg la ba pare nag bëgg ca nag la gën a rafet nga koy def nag wa maa umiru illa li yaabudullaha moxlisin na ko sama sang ba xulaam rasulillahi yan nañ ko yàlla fayal daan jàngale muy lu am solo euh, oustaz Babacar bu Saint-Louis lañu ñu àndal tey ji waxtaan wi am solo lool ci jikko bi nga xamante ni moom la nit ki war a amee bu àndee ak nit ba mënatul waaye lépp ca tabax bala ca fondement bala ñu jël kooku ci ligne bi allo allo salaamaaleykum maaleykum salaam soxna Mbaye waaw soxna si ñu ngi lay ziar. caa man la yaay Mamadou Ndiaye maire Fatou Fall ci Ndar mère Fatou Fall ci Ndar. waaw yaayu Mamadou Ndiaye. yaayu Mamadou Ndiaye yow rek la ñuy déglu yaa booy. waaw. maa ngi kontaan ci yow torop di la ñaanal yàlla. jërëjëf yaay jërëjëf. di la ñaanal yàlla ci sa métit wi bu baax sama xel yëpp nekkoon ci yow. ndeysaan wallaahi wallaahi ndeysaan. laajte naa sa numéro ba taay yi. wallaahi ndeysaan. tey jii la ko yàlla di doog dogal. dëgg la dëgg la kay. yàlla na la yàlla yokk wér yokk ma ko yokk bépp jullit. allahumma amiin te kenn bañ a tëdd. Eh, kooku nga toogal nag daf di càmmiñ ci man boole ci. ndeysaan. Mm-hmm. Babacar moo nga toogal. waaw. daf di càmmiñ ci man. ndeysaan dëgg sama càmmiñ lay àndal du ma bokkal ndey ak baay. ndeysaan. a ànd xaleel ba léegi bokk seen daara. ndeysaan. lu rafet ak lu baax moo mës di am ci seen diggante ba fii ñu toog. ndeysaan yal na ko yàlla. daara jël nekk ñoo ngi fay def lu baax di ko fa wax di ko fa jëriñ ci àddina bi yëpp. ndeysaan. dañ leen di ñaanal gudd fan gu ànd ak wér. allahumma amiin. di la ko ñaanal yow moomu toog. amiin am nga nag fii ci kër gi ñoo xam ne bare nañu la sopp. wallaay ndeysaan am nga fi sa turandoo bu naa wax mbayang ndeysaan waaw waaye yëpp mbayang kenn mën ko wax ci téléphone bi ndax dama bañ yàgg ci ligne bi jërëjëf jërëjëf te bu yàggee sama xol tooy ci yow ndax dama la yàgg estimé wallaay ndeysaan sama xel yàgg nekk ci yow maa ngi lay ñaanal yàlla gudd fan bu baax jàmm amiin ñu bokk ko ñun Babacar maa ngi koy bu baax fay naa la jërëjëf waaw fay naa la waaw kay la jërëjëf ndeysaan jërëjëf Thiam Ousmane Tamsir Fall ñooy ànd sama doomu wax dëgg yàlla ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax soxna soxna si Fall Ousmane Tamsir Fall boobu itam ñu ngi koy nuyu di nuyu waa daara ji yëpp ndax euh, dégg nañ ci jëw ci yéen daara rek moo leen ñor defar doom aadama rek moo leen ñor te loolu boo koy def da koy dooree ca xale ba comme ni nga ko waxee rek euh, ca tabax ba foofu lay euh, jëkke amee solo waaye nag bu ñu demee ba nga xamante ni ba bi am na lan mooy waral aussage lan mooy waral nit ki ci wàllu boppam dem ba ba à un moment donné rek changement am nga jëlanteeg moom wala ndax jëlin ba dafay am problème d'abord ba pare. waaw fa ñuy jëlee ak fa ñuy tànnee. loolu yëpp day am problème yàqu-yàqu bi fa muy tàmbalee foofoo sore. Mhm. te nag bokk na si mbayang mhm. li yàq suñu jamono. mooy. lenn si suñu borom xam-xam yi. Mhm. ndax yonent bi nee woon na sallallahu alayhi wa sallam jamono ngi ñëw. lislaam bi dootul des lu mooy tur wi. tur wi. c'est vrai alquran gi dootul des lu may mbindin ma mm. ak njàngin ma mm. maanaam dangay gis ñu bind défense d'uriner mm-hmm. yaa ngi jënoog liir di ko liir waaw ba pare te di def li ngay def boo pooy moytuwul sax texte nag wax ju ñaaw da ngay da ngay koy sekk sax mu wexxaat foo borom bi day xat te ñu ngi ci bind défense d'uriner jëf ko mm-hmm. jëfinu maa tey mm-hmm. nee na nag jamono jooju waaw jàkka yi daanu fees mm. xol yu wéet waaye xol yu wéet nañu si hmm. ragal yàlla hmm. mu ne ñu yées ca jamono jooju hmm. mooy boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi jamono jooju fitna yi si ñoom lay jóge waaye fitna yi si ñoom lay dellu ndax dëgg gi ñu waroon jox njaboot gi joxatuñ ko njaboot gi li ñu waroon jàngal njaboot gi jàngaloon ko njaboot gi ndax bu yenent bi ne jigéen ñi seen ay tool lañu bay leen leen ca na mu leen soobe sëriñ bi bu jëlee baat boobu kese jàngal ko nit. te tojul yox bi te tojul yox bi kooku lu ko dal yaa ko teg. Hmm? mooy nga jël oto bi oto jox xale. Hmm? ni ko dawalal. Hmm? mu taal bu taalee yàlla mën na si suturaam. mu jubal balaa moo sore ñu téye ko. waaye bu ci nattu yàlla dugal boo moytul daan ci am loolu lañ naqari. loolu mooy li am ci sëy ndax boo nee góor jigéen euh, góor boo jëlee jigéen sa jabar jële ko sa namu la neexe ak fa mu la neexe boobu yaa ngi jur yàq te yonent bi moo wax ni jox jàngal sidna aliyun ñeen fukki xadis yu nga xamante ni benn bu si nekk buy wax ak aliyun danaan ko yaa aliyun moom laa la bëgg leeralal tey ayca ci tàmbali ji daf ko jëkk wax ne ko yaa aliyun laa tujami imraataka xata taqula bismillahi arrahmani arrahim mu ne ko yow aliyun na nga fexe ba bul say ci say soxna mukk te waxuloo bismillahi arrahmani arrahim qabla shurui lu jiitu ngay tàmbali fa in lam tafal dalika kaana cheytaanun sharikan maaka fi l amwali amwali wal awlaad mm. nee na soo ko defulee na la leer ne cheytaane dina am dogal si sa njaboot dana am dogal si sa alal. ci baat bu gàtt boobu rek bismillahi rahmaani rahim. kese yow Alioune. Hmm. na nga fexe ba bul seeg sa njaboot mukk. sa hmm. waa kër mukk te waxuloo bismillahi rahmaani rahim. gis nga Alioune bés boo ko waxulee. Hmm. seytaane dana ca dugg. dana bokk ak yow sa njaboot. boo dogalee suba mu dogal midi. mbokk ngi ci ligne bi na fekk nekkul ngeen di poñante ba war caa jot bu boobaa xam naa da ngeen ko xaw a fàtte mbokk allo. <laughs> allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si ñu ngi leen di si sama yaay ñoo ngi laa ziar Mbaye Thiam. Ah, waaw ayca yaa booy tur bi naka la. waaw maa ngi fii ci Ndar. <laughs> ah yaay waaw waaw maa ngi laa ziar bu baax. de la maa ngi laa delloo ziar bu baax mère Zouk. Zouk sax laa lay wax sa yaram na nga def. <laughs> bu baax yaay booy la sopp. ndeysaan. waaw ju la bëgg ju la ñaanal la ba taay. wallaay ñaan ngeen ba yàlla la yàlla may wér. allahumma amiin taan nanu. allahumma amiin la ba taay xale bu baax nga. ndeysaan. yàlla la yàlla laf cat may la wér. allahumma amiin yaay julit allahumma amiin di kontaan nag doomu biir boobu nga invité. ndeysaan ndeysaan Babacar Diaw boobu toog. dëgg la dëgg la waaw di sama doomu biir. Mhm. maa di rakk yaayam. Mhm. mu bëgg yaayam sopp yaayam. ndeysaan soxla ma. du xëy xëyuma du gont te gont ba jaw ndeysaan waaw yaa naka yàlla lafal cat allahumma te bàyyi ko ci suñu kanam ndeysaan waaw ku uufu ci yaayam la ku bëgg ay jigéenam ku sopp ndeyam ndeysaan waaw jërëjëf yaay Soukeyna kontaan nañu torop. jaww jërëjëf ñoo gën a kontaan waaw kontaan naa torop. jaww ñoo gën a kontaan yaay su koy naa. waaw Baye Thiam nag ñu laa ñaanal yàlla na la yàlla way <laughs> wér te lafal la ca. allahuma amiin allahuma amiin yaa booy. <laughs> ndeysaan ma koy jaajëfal bu baax a baax sunu yaay su na man génération bi ñooy samay xarit parce que dañuy xëy suba forcé xale yi wu ñu sax commande yi waaye dañu naan jàppal ma ajaa Mbayang. jàppal Adja Mbayang vraiment moo tax euh, bi ñu toogee gisatuñ ñu manqué woon nañ leen lool waaye nag alhamdulilah seeni ñaan rek moo ñu fekkoon fa ñu nekk ba ñu dellu si waat yàlla na ko yàlla saxal te saa yu ma gersoo gis leen euh, ñu ñëw rapidement Oustaz parce que xam naa ni tey li ñu waxtaan li ñu waxtaan dafa bari te damay ñaan dama lay ñaan sax kër gi moom bu fa diggee jëti donte ndar sax sori na <laughs> waaye kër gi moom sa kër la ba tey ci waxtaan woowu nga xamante ni yàlla mi ngi ko doon waxtaan ak yonti euh, moo ko doon waxtaan ak Seydina Aliyun Seydina Aliyun voilà ñu ñëwaat ci boobu mu dellu waxaat ka ni ko yaa aliyun e yow aliyun mm. laa tanzur ila fati zawjika xiinal mm-hmm. ta jaami mm-hmm. alin bul xool sa kanamu soxna jamono bi ngeen di sëy ah oustaz indi nga débat mm. waaw waaw bi ngeen di sëy mm-hmm. bu ci xool sa kanamu soxna fa in qada allahu baynakuma bi waladin yakunu axan naas mu ni bu fekkente ni sëy ngeen ci jamono jooju. Mm. ngay xool payam. Mm. ci instant yooyu. Mm. yàlla dogal si doom. nanga xamante ni doom jooju workat lay doon. Hmm? xool leen nag jamono. <laughs> roxaye bu ma siit see bàyyi ma. <laughs> yéeme na de. dama ni quarante hadis la. yu benn téere ëmb. yéeme na lool yonent bi waxu see kenn mais lu tax lu tax yii duñ koy faral di jàngale. sëriñ si am na ñu ko see jëfandikoo. seen ay doom a ngi nii xoolal parce que man dama gis yii duñ koy faral di gis ñu koy jàngale parce que dañ ne jigéen ñi seeni tool lañu. waaw bay leen ci nu mu leen neexee. mais nag ci benn yoon rek la voilà ci benn yoon rek la leen lislaam aaye. Uh-huh. pour ngeen di fa jaare seeni soxna. waaw am na ñoo xamante ni sax ñu ngi koy diingat parce que dañ ne tool moom bu la neexee tekkil xer wi jaar fi bu la neexee tekkil sàkket bi jaar fi wala wala wala nga dindi ngeer ma ne mm, jaar ne. ba tey Suzanne dafa am euh, lu ñuy <laughs> xaw a. tey bu ñu moytul nañ génn que loolu débat boo xamante ni dafa intéressé nit ñi. waaw. Mhm. ndax tool bi yaa ko moom. waa waaye mais dama lay laaj fi ñu toll nii. waaw tool bi gaa jamono bu la soobee bay ka lool lool lool la yónnent bi wax. bay leen si jigéen ñi seen ay tolloon bay leen leen ci jamono bu mu leen soobee. Ah, mais ak nu mu leen neexee. ak nu mu leen neexee. waaw waaye léegi nag dafa am lu ci nekk. xam nga ñun waxu njaboot la ñuy wax. Mhm. jamono bi nga waree ji. waaw yor sa yor sa gerte gu baax. produit bu baax. waaw ñu saytul la ko ba nga xam ni baax na. waaw fii ñu toll nii ci Sénégal instant bi mm. ndax gerte googu buñ la ko joxee da ngay dem léegi ci tool bi jikka wala nga jikka taatu géej. waaw déedéet. gerte ga. aha kon kay jeex na waxtu ji dafa am. ndeysaan dégg neex de. waaw kay. <laughs> foofu doy naa yem. waaw yow mi nekk Louga. Mm. wala nga nekk Ndakaaru. soxna si nekk Ndar. waaw nga agsi léegi ci mardi matin bi. waaw. dugg ci douche bi sangu ndox mu tàng. ci yoon am na lu mu laaj. am nga ci droit. waaye fexeel ba bu mu nekk jamono ji jamono bi bàq bi di tooy période de fécondité. nga yaakaar ca doom. seetal guddi ya nag ak waxtu ya ak defin ba. ndax moo tax fajum ñàkk am doom bari léegi wala. kooku yi ba tey beneen kaala. parce que période yi ak yooyu loo dinañ ci ñëwaat. naa la bàyyi nga yeggale fi nga nekkoon. waaw amoon na solo. dégg wax ji. maa la dégg. mu dellu waxaat ka ni ko yaa Alioune. Mm. laatu jaami imra ataka. Mm. bi sum atin. Alioune bul di sëy ak sa soxna. Mm. ak coow. Mm-hmm. di wax di wax. nga mer mu mer na wundu. kebatu gi mel na tulleeg màlle. wala yéen a ngi sëy soxna sàngee kaas problème boo waroon réglé te réglé woo ko yëpp ci biir sëy bi. wax ji mel ni tulleeg màlle ba bu nit rombe yaa day yaakaar ni yéen ñi da ngeen di xuloo wala ci yeneen ngeen nekk te fekk na jamono jooju yéen a ngi am na leneen lu ngeen di def waxu xuloo wala wax boo xamante ni wax bu neex la wala wax ji si boppam lañu doon la ñu soppul nee ah, nañu dañuy noppi rek noppi <laughs> mbokk asalaamaaleykum oustaz indi ne loo xamante ni tey jii problème yu bari dina yëngatu ci kër yi mbokk allo <laughs> allo salaamaaleykum waaleykum asalaam na ngeen def. ngi sant yàlla ba alhamdulilah. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. nax maa ngi woote fii ci Ndar. yaa ngi woote Ndar naka waa Ndar. di di woo sama grand sama magum daara. ndeysaan tur bi naka la. di Abu Boubacar ngi la tudd. Aboubacar moom ñoo. yow rek la ñuy déglu maa moom ñoo duggandoo daara bee bés. ndeysaan ñoo fa nekkandoo ba léegi. Mm-hmm. waaw muy mag mu baax. ndeysaan. Mm. allo da ngay wàññi sa télévision mag mu mag mu nga xam ni mënu ma expliquer sama xol dafa fees. te ji dama kontaan kontaan goo xam ne xolam dafa tooy. Hmm. mu mu sax wax te ji daal waaye daal saan bi yëpp dafa dellu ci xulaamu rasulillah. li lu nekk woon ca daara ji yëpp mooy dëgg ji dëggu yàlla ji rek. ndeysaan loolu tëjee woon. Mhm, mhm. am jàngewuñu jàngatuñu woon école bàyyi sunu lépp. rox hmm. sa daara ngir xam dëggu yàlla ji nëbb. ndeysaan gannaaw ba xuraam ba mu paree jëf li yëpp su xol mm-hmm. ci la ci la ci la ci la nu wan gannaaw ndeysaan waaw lii yëpp nag lii yëpp nag mu am teraanga ji nee naa ko jaw mm-hmm. yaatoo ko waral mën boot sunu mag la waaye ñun bala luy def dara dañ koy déglu mm-hmm. waaw na yàlla yal yàlla yaatal dënnam si daraja yonent bi jërëjëf amiin amiin waaw ku baax la wax dëgg yàlla man daal mënu ma sax wax li nekk sama dënn bi wax dëgg yàlla. ndeysaan jërëjëf waaw kontaan nañu trop trop trop lii rek la ñu yore nag lii rek lii mu toog nii di ko wax. moom rek la ñu yore. noonu am lii moo liggéem liggéeyam ci këru àddina. noonu la. waaw jërëjëf waaw mënu mënu wuti fu woon dara wuti fi dara lu ma defar ñu mel na ñoom. daara ji mu jóge nag ñu mel ñoom rek a fa ne waaw moom xam na li kaa wax xam na moom moom li kaa wax sunu nag jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi nuyu waa Ndar yëpp di leen ziar di kontaan ci ñoom euh, njabootuk euh, Fabinta Kumbalaw be ga fa nekk ñoom Astiam ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu sama sang yooyu nga xamante ni seen yaay mooy sama mooy sama jaam maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu waa Saint-Louis yëpp bàyyiwuñu kenn kenn kenn Euh, waa Kër Mafal ñu ngi koy nuyu bu baax euh, soxnaam Ayda Gueye ñu ngi koy nuyu di leen ziyaar bu baax waa géej gi yëpp. Euh, oustaz ñu delluwaat ci point yi. waaw ma ni mu ni bu leen nañu kaleel pub bi ñu dellu si waat ci léegi en le temps que oustaz daaneel ñu kaleel ñu publicité bi. rapidement ah, oustaz waaw ma ni. Mm-hmm. bu leen def ko mu wundu. xam nga wundu bu nekkee ci kaw seng bi coow li ni kur. balaa Ablaye Fall bi di si jot lu nekk lay daj. waaw ku ne dégg mu ni bu leen def ko mu wundu. Mm. bokkul nag ak tëdd ak sa soxna ngeen di waxtaan. Mm. déedéet. Ah, ba tey toujours da ngay dégg wax ji. d'accord bu demee ba jaxasoo am. Mm. kebatu moo ca waratul. noppi pat. kese. ndax nee na bu ngeen ca kebatoo ba yàlla dogal ca doom. doom jooju dana nekk miskinan wa maata faqiran. miskin lay juddu lay juddu. faqir lay deewee. ci ànd ak sa soxna di wax rek. wax jax ba ngeen di jaxasoowee rek wax ji mel na tulleeg màlle yaa xam nag lu ngeen di wax yonent bi moo ko wax Seydina Aliyun te yàlla moo dëggal yonent bi mooy la ma la waxoon ca tàmbali ga wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa du wax ci bànneexu ba kanam lu mu wax man yàlla man maa ko wax loo moom sallallahu alayhi wa sallam jaam bu yem ci kudd la ñu roof ko ci gayet mhm. naka sama sang bu baax ba daan waxe mhm. xulaamu rasul yan nañ ko yàlla dolli fayal ki dugg léegi nag it sama rakk daara la sama doomu ndey la ñoo yàgg di ànd ndeysaan moo ki fi jëkk tudd sànq di Ousmane Tamsir Fall mhm. kii mooy Boubacar njaay ñeent lanu waaye yàlla dogal na kenn kaa nga bitim réew ñun ñett ñoo des ci daara ji doom yi ba macha allah alhamdulilah. alhamdulilah kon yan nañu ko yàlla fayal. allahumma amiin te yàlla dolli suturaam. allahumma amiin ci daraja yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam surtout gaynde la ndax. uldu njaak ku nekk xam na ko ëmma njaay njaak ca ndar ku nekk mhm. xam nga ko. ndeysaan moo jur baayam. est-ce que. Ah, jërëjëf. Moussa Ousmane Diagne Abdou Boy ñoom suñuy représentant la ñu nekk foofu ci diwaanu Ndar ñu ngi leen di nuyu bu baax ñoom itamit di leen ziar di def liggéey bu am solo ci Ndar ak li ko wër ñu dem ànd ji ak service commercial seetaan benn publicité dellu siwaat waat àndaat ak yéen ci téléphone yi ak euh, sunu débat tey jii moom euh, man dama am gan gan laa am <laughs> euh, ñu dem seetaani publicité dellu si waat <laughs> Depuis sa création, l'entreprise menuiserie Le Saloum, EMS, ne cesse d'innover dans le travail du bois massif. La force majeure d'EMS, e c'est bien comprendre les besoins de ses clients afin de concevoir les meilleurs meubles avec du bois africain de qualité. Du bois bété, de l'iroko, du padouk et bien d'autres bois d'Afrique.

merci beaucoup monsieur et madame Dramé entreprise menuiserie du Saloum euh, ñu nekk ay doomi Sénégal di liggéey liggéey bu am solo la ñuy liggéey itam di jóge ci Sénégal fii am garanti bu wóor yaakaar naa ni consommer local rek la. Euh, offrir ñu plateau bi te nag euh, gis ngeen ko seetlu ngeen ko depuis bi mu dugalee loxoom ak léegi gannaaw gay mi nga xamante ni mooy tubaab ameublement mu koy nuyu moom tamit bu baax a baax a baax ndax ku fàtte démb ku ne rek euh, dogor gay moo ci jëkk a dugal loxoom ànd ci ak man waaye nag Touba ameublement ñëw nag ñi nga xamante ni ñooy bu bois massif menuiserie di Saloum ñëw. ne ma ñaari weer yu nekk danañu changer décor bi tegal la yu nooy yu baax indi yeneen yoo xamante ni rek dinañu xam ne émission kër gi dellu siwaat na kon monsieur et madame Dramé entreprise menuiserie du Saloum yàlla na seen jàmm yàgg te gars yi nañu commandé ji nag bunt baa ngi noonu ñu mën a wéy di ci jaar euh, ba léegi indi seen xalaat ci li nga xamante ni moom la ñu yëkkati tey ànd ko ak oustaz Babacar mu jóge ba diwaanu saint wi di def waxtaan wu am solo léeg dañuy wax ne nag dégg gi dafay xaw a metti ndax léegi topp nañu sunu naf su bakkan kenn ku ci nekk mbayang sax su ko neexee mu ñëw ni la xaaral rasulullah te jàngul wanaa de njaay indil la aaya yoo xamante ni wax dëgg yàlla doo xam fan la jóge waaye nag yàllaa ngi def am na ci ñoo xamante ni la ñuy wax fu wóor la ko teg bokk na ci moom mi oustaz Babacar ci yi nga xamante ni moom la indi te jigéen ñi nañ ci bàyyi xel nag ndax kenn ku ci nekk doom ju baax ngay góorloo fan ngay jaar ba am ko leçon yi moom la ñuy indil tey ji waaye dañ ko jeexalee ci ngor gi nga xamante ni bu ñu demee ba doom yi dëgër wala ka indi doom yi euh, nekk na koo xamante ni gàllankoor ñëw na naka lañ koy entouré te loolu yëpp li koy waral du dara lu dul ngor oustaz ma bàyyi la nga dellu fi nga nekkoon. waaw jërëjëf soxna Mbayang. Mhm. yal na yàlla may ñu dégg ak topp. allahumma amiin. gis nga ngir yi jàngale diine. Mm. fukki ngiir la ak ñaar. Mhm. Sénégal ñeenti ngir rek lañ ci xam. te bu imaam Malik lañ gën a gën gën a. lañu sukkandiku. kon boo peegulee fukki ngiir ak nga ñaar. Mm-hmm. pour nga diingat. Mm-hmm. du warul yomb soo maandoo. dëgg la. ñaareel ba yonent bi ba muy jàngale diine. Mm. ña ko waroon ñëpp ku si nekk dafa am noo déggee degré d'entendement yi dañu yemul woon. c'est ndax léeg-léeg nga wax benn kàddu mm. kii dégg ke nii kii dégg ke nale dëgg la ba muy jàngale it ña toogoon ñëpp ku si nekk danga am noo déggee. Mm-hmm. ba nga demee ñibbi. ba yonent bi génnee àdduna sallallahu alayhi wa sallam ba ku nekk dellu fa nga jóge woon mm-hmm. di jàngale pour jottali yonent euh, mission wu yonent bi mm-hmm. da nga jàngale rek na nga déggee mm-hmm. looloo tax yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni al ixtilaafi aimma rahmatan lil umma uutaloowu boroom xam-xam yi yërmande la ñeel xeet wi kon bul ni xamuloo bul xam bul ñàkk xam dara uute ko rek wala gisuloo ko rek ne amul mais est tamit problème mu sëy ak ni ñuy seyee ni ko jàppee sujet tabu moom moo tax ba léeg ñu ci bari duñ ko xam parce que fit bi nga am tey jii wala ñëw tey jii nii laa koy jàngalee nii lañ ko waxee ak nii bariwul débat yoo xamante ni dañ ko ciy def ba euh, dafay dem ba léeg-léeg sax mën naa réeral nit ki ba lu mu for rek dafay jàppee na loolu moo baax loolu nag moo am sujet sujet tabu bi ñu ko def moo tax te l'islam jàngale na sëy te liñ nit ñi koy defalee ay cassette film ñuy laqatu di ko seetaan di ko seetaan l'islam defaral suñu bosu bopp téere bu nga xamante ni waaw qurratul uyun mi ngi fi d'accord ak yeneen téere mm. da jàngal soxna sa nga war a takk waaw mindam mm. warul gàtt ndugur ñàkk loos mm. warul ni coleet ñàkk suux di la si di la si génneel bar benn ba di la indil nag ba nga idéal ba bu baax ba kon diine bàyyiwu la. déedéet ba ceroog ba ngay jaxasoog sa soxna. Mm. l'islam bàyyiwu la. dëgg la nit ñi ñoo ko jàngatul ba pare def ko sujet tabou. Mm-hmm. soo ko commencé woon la waare léegi dañ naan oustaz bu bu bu dëgër bët bi. waaw wala oustaz bu futi bi. ndeysaan te pourtant dañ ko jàngale yonent bi moo jàngale kenn indi wu fi lu bees. ndeysaan dama ni la kenn indi fi lu bees. du benn kër mag nag mu ñuy topp fii ci senegal wala feneen fu dul Sénégal bu fi indil yàlla diineem. ci diineem lu wax rek waxi jàmbur la yonent bi indi na ko. sallallahu alayhi wa sallam ñu jël mbokk moomu ci ligne bi ñu rapidement muy gàtt allo. salaamaaleykum allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam waaleykum salaam. soxna Mbayang. waaw. man la Kara Diouf. la Fari Diouf. Karo Karo sama soxna. Karo Diouf mooy sama buuru këram. waa. Adja Kara ay ci yow rek la ñuy dégloo. soxna Mbaye invité nga naataan. moo man daal awa yi <laughs> di nga ñaanal yàlla rek yàlla yokk amin may ko wér gi gën a jafe. allahumma amin Adja Karo. bàyyi ko si suñu kanam ak kanamu njabootam. ay waay amin waay. kontaan nañu torop wax dëgg yàlla. ndeysaan ndeysaan. ah noonu la Diouf yàlla jëmale kanam. allahumma amin yàlla yëkkati martabaam si daraja Muhammad si barke laa musul ndeysaan dina ko dal ndeysaan Adja Caroline Diouf aaw buuru këram ñu koy nuyu bu baax a baax dafa am daf ci am solo ndeysaan yan na yàlla fay ñaanal te bant yi moo am yan na si yàlla def barke amin amin ci daraja yonent bu tëdd bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ma profité tuuti rek ci xadis yi balaa waxtu dinu dab waaw mu dellu waxaat ko ni yaa aliyun mm. laatu jaami imraataka mm. fii laylatil ahadi mm. bul di sëy sa soxna ci guddi dimanche. dimanche waaw samedi ci guddi. samedi ci guddi. waaw biir seddi dimanche. Hmm. mu ni fa in qadallaahu baynakuma bi waladin yakunu qaatilan wa maqtulan bil xadiid mu ni bu ca doom sosoo. Hmm. dana nekk doom juy reye wala daanu ko rey ak weñ. waaw oustaz nag liggéey altine talaata àllarba alxames àjjuma samedi rek nga am ak dimanche noppalu ñun la bu fa ànd ak soxna si. te ngay wàcc xaaju la bu fa ànd ak soxna si ba tey soxna Mbayang. nay leer de damay laajal ñi toog jàkkaarloo parce que waaw kay dama la bu ngeen tolloo ci jamono ji. jamono ji waaw. d'accord bu fekkente ni période fécondité la. merci beaucoup il faut mu leer. waaw kay loolu laa bëgg mu leer de. voilà waxuma kenn sàkkaluma kenn bés bi muy jël soxnaam ak waxtu wu mu koy dul ànd ak moom. mais ñu moytu ko waxtu àndaleen ak seen soxna si waxtu wu mu leen soobe. bu tolloo période fécondité waaye nag période fécondité nga xamante ni bëgg nga ca doom. Mm. ngal la waaye defal ni yonent bi dénke Seydina Aliou. ni naka defee noonu nga daw sànni nga jaayante ka. nga jar da koy jar. jeex na tàkk. doom ju baax ju ñuy tiitaroo kay moom moom da koy jar. te nag daaka boo am na guddi gu nga xamante ni bu la ca yàlla wërsëgalee. Mm. ah daaka ca am mi ngay ñëw guddi gaa ngay ñëw guddi ban guddi mu ni ko yaa aliyun ba tey hmm. laatu jamri eh, laatu jaami ahlaka fii laylatil arbi arbi ay laylatul arbi ay waaw arbi ay mooy guddi àllarba hmm. mu ni fa fa in qada allahu baynakuma bi waladin yakunu zaliman wa mazluman hmm. su yàlla dogalee ngeen sëy guddi àllarba bu ca doom sosoo doom jooju dana nekk tooñkat wala ku nuy tooñ tooñ kat mooy doom ju nga xamante ni man di fekk nit ñi si grand place déplané nit ñi. ñu naan cee doom doomu diw diw ji jàpp leen bàyyi leen yàlla nañ ci yàlla musal. doom ju nuy tooñ it mooy mu génn ci mbedd mi ak ay sagaram xale yi for doj darka. donc léeg-léeg bi ay daal nañ ko moytu. waaw kay fu mu ni nii ñu ni ko ca biti. Mhm. te deful waxul. doyee di la xelam sax amaana nekkatul ak moom fu mu ni sanaax ñu ni dox leen ca biti lu mu laal ñu ni ko tegal. tooñ kenn du ko boole ci dara. dara tooñ nañ ko. du semb dara ba mu yegg. lu ko waaye wax ko ne tooñ nga ko. kon nañu moytu laylatul arbia yi guddik àllarba <laughs> ñëwal ñu ci yuy baax yi nag oustaz ah, guddi yu baax moom tourné ko rapidement ndax temps baa ngi dem te jigéen ñi soxla nañ ko mbokk allo <laughs> allo allo asalaamaaleykum waaleykum asalaam wa allo oh là là ñu ngi koy jégalu bu baax a baax di ko xaarandiwaat du ñàkk moo am chance pour dugg mais guddi yi nga xamante ni moom moo baax bu fekkente ni période fi fécondité la waaw euh, gudd yan moo baax pour mu ni ko yaa aliyun waaw alayka bil jimaa'i laylatal xamisi mm. wa laylatal jumaati mm. wa laylatal isnayni mm. mu ni ko aliyun yow dénk naa la ngal la waay na ngay euh, joteeg sa njaboot ci guddi alxamis ak guddi ju àjjuma ak guddi altine mu ni fa in qada allahu baynakuma bi waladin tilka layaali yakunu xurran aaliman zahidan aabidan saalihan taqiyan mu ni ko aliyun ngar la waay boo séyeeg sa soxna guddi alxamis wala nga séyeeg moom guddi ajjuma wala nga séyeeg moom guddi altine bu ca yàlla dogalee doom hmm. ba tey nay leer bu ca yàlla dogalee doom bu ca yàlla dogalee doom hmm. si seen diggante yéen ñaar ca guddi yooyu benn. Mhm. nee na nanga nga xamante ni doom jooju gor lay doon. ndeysaan mooy altine. guddi guddi alxamis ak guddi ajjuma. ajjuma. mu ni bu ca yàlla dogalee doom doom jooju gor lay doon. Mhm. aliman lay doon borom xam-xam lay doon. Mhm. zahidan ku dëddu lay doon. abidan jaamukatu yàlla lay doon. saalihan doom bu yiw lay doon. maanaam doomu ndëf yu bët. Mhm. ku gis ku ko gis bëgg. bëgg ko maa bëgg doomu diw ji. ndeysaan. taqiyan ku ragal yàlla lay doon. Mhm. guddi yaa ngoog. muy am solo. waaye nag am na nit ñu mel noonu ci biir nit ñi. Mhm. dañu ca tombe wala amaana it seen papa ah, seen seen ay way juróom. xamoon nañu guddi googu. xamoon nañ guddi yooyu. mais est-ce yi jaaduwul woon tey jii ñu di ko def ay mool. jigéen joo xamante ne rek yeew nañ la maye ci biir euh, jàkka ji wala ku góor ku fa ñaan si jabar ñu jël mool boobu boole kook certificat de mariage ba nga xamante ne fexe nañ léegi ba jàkk yi dinañ def certificat de mariage ñu booleel la ci lii rek c'est vite fait ne la am gànnaayoo ko mën na laa dimbali est que kon bu boobaa du ñu jubantil bu baax. waaye Mbayang dañuy dellu ca wax ju jëkk ja rek. mooy. jamono ji ñu toll. mooy. fitna gu nit ñi jam dund. Mm. ñañu tudde boroom xam ñoo leen ko teg. est-ce que du bëggoon c'est-à-dire c'est ndax bu fekkente ni yaa ngi mayee sëy. waaw ay barke. waaw seet na mu la fa neexe nga maye ko. Mm-hmm. na yonent bi doxalee woon bàyyi nga ko na xaadimu rosul doxalee woon bàyyi nga ko na Maodo daan doxale bàyyi nga ko na Cheikh na Cheikh Saad bu daan doxale bàyyi nga ko waaye taaliba yooyu ñoom ñoo dem di dem di dem di dem ba kenn ku si nekk indir sa façon bopp bàyyi fa doxalin yooyu waaw ñëpp njaboot yooyu ndax tey ji yow am nga sañ-sañu ñëw di leen fekk fa ñoo mayee nga naan leen bu leen defee nii am leen ngeen defee nii bu boobaa loo fa dégg yaa loo fa dégg moo tax pëccëxoo gi bari moo tax kilifteef ñàkk muy lu am solo kilifteef ñàkk ba ñu dem sax ba ñi ñu wa ñu nga tuddee ne ñooy sunuy kilifa te joxe ci ñoom exemple tey wax jeeg coow leeg yëpp daf ci bari maa ngi ko dégg di jébu siki suba mu koy wax mu ne bu njëkk ba da nga naan taal di programmer la nga cay teg pour sa njaboot di ko seetaan mais léegi kenn ku ci nekk sa télévision mi ngi ci sa loxo mën ngaa filmer sa bopp enregistrer sa bopp wax ku la neex lu mu la neexee envoyé ko ñu tasaare ko partagé ko pare def ko ay reetaan réew mi fan la jëm boobu beneen thème la boo xam ne duñ ci dugg sax mais dinañ ci débattre parce que nag trop c'est trop te war a wax boo waxul boo yomal xiyaamee yàlla dina la laaj ba nga amee opportunité wax lu tax waxoo. dama ni la boo amulee doom ju yiw. waaw am doom ju yiwati. yàlla nañu yàlla may doom yi yiw. te du yom yiwati yi nag ñooy def nii ñooy def nii nag léegi nag. ñàkk hmm. kersa gi. saaga yi bari na léegi de. mais ñàkk kersa. futteeku yi bari na léegi lu ko indi. li ñu dese ci waxtu dafa daanaka dafa dafa dafa dafa jeex nañ ma may cinq minutes rek mhm. oustaz euh, nga débattral ma ci ci jàppale gi mhm. mbokk daf ma doon wax ne ma euh, du jëkkër ak jabar rek ñoo war a jàppalante du du mag ak rakk wala gorog njëkke mhm. waaye nag ki nga xamante ni nekk nga ak moom ci biir kër gi wala nga nekk ak moom ci biir koñ bi nga dégg ne mi ngi am jafe-jafe bii lu tax léegi amatuñu xolu jóg jàppale nit te yàlla tax may ma ci lool rek ma jël ki ci ligne bi rapidement allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa wa ah dese ma temps bu xaw a kii euh, tur naka la mbokk ak fooy wootee. Euh, Moustapha Abité yaa yaa ngi. man la Moustapha Abité maay maa Yoff. Moustapha Cissé. Bitey Bitey ay Cissé. <laughs> Moustapha Bitey Moustapha fan nga ñuy wooyee. Ah, soxna si nangu naa la. maa la raw fan nga ñuy wooye sëñ Moustapha. Grand yow rek la ñuy déglu. waaw man de dëgg dëgg yàlla kontaan naa ci thème boo. jërëjëf. jàkkaarloo bi ma ndax na moon naa la laa gis ci télé bi. ndeysaan dëgg yàlla. ndeysaan. Eh, yàgg naa yal na ak jàmm ak sutura. allahumma amiin allahumma amiin ñu bokk ko. yal na nga boobu nga yal na yaatam. ndeysaan. li ñu wax lii nag ñu ngi bàyyi ci xel. incha taala. yal na yal na yokk yal na xamam ak barkeem. amiin amiin barkeem yàlla mot amin mi ngi lay ñaanal oustaz salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam wa bi tey ñu koy nuy bu baax a baax di ko ziyaar waa Grand Yoff yëpp ñu di leen bàyyi xel euh, di bàyyi xel képp koo xamante ni yaa ngi zone yooyu la di la nuyu la ziyaar soxna su mbàkkee bu sëriñ Murtada bu sëriñ Touba maa ngi koy nuyu bu baax di ko bàyyi xel faatu Géwal Kara nooree nii nuyu naa la ziyaar la ñaanal la jàmm yaag sa borom kër euh, sëñ bu naa ma euh, wàllu dimbalante boobu nga xamante ni léeg dafay ñàkk am parce que dama koy tooñee sama xale yi sànq ko dajeeg man ne ma mais namoon naa la man leen yéen mes condoléances moo gën a gaaw ci yéen que ndax yaa ngi tane xale yi di ko reetaane lu tax loolu noonu. adduna mooy jeex soxna si. waaw. ragal yàlla dafay jeex. Mm-hmm. bu boobaa yërmande dootul am. Mm-hmm. te am lu nu yàlla santoon. Mm-hmm. taawanu alal birri wa taqwa mm. wala taawanu alal ismi wal odwaan mm. dimbalante leen ci mbaax. ak ragal yàlla. wala taawanu alal ismi wal udwaan bu leen dimbalante ci ndoono ak mbañeel te mooy fii àdduna toll léegi direct mbay ak li la di wax ah diw bu ma doon yow daal di la taal yow ba nga tàkk ba boo gisee diw moom dal ci kawam ba pare téye sama archive tasaare ko pour ñëpp jot ci ah, bañ ma la gënoon nag mooy mu defal la mm-hmm. nga ni man de dégg naa diw wax na ma wax ju ma naqat nga ne ko am mbayang dégg naa rek la mm-hmm. diw janoowul ak yow mm-hmm. pourtant si suba yaa ni daje ngeen daf la ko wan nga ni ma déedéet nga ne ko kon nag àdduna la te pourtant bi ma dajeeg moom lu baax li mu wax ci yow nangul mu daal di rafet kese rafetal loolu la ñu yàlla sant loolu la indi yónnent bi indil sallallahu alayhi wa waaw ndimbalante mbaax googu bu fi amulee mbañeel gi moom la moom moo fi des. dëgg la te loolu mooy li jàpp àdduna fii mu toll nii. ndeysaan yàlla nañu ko yàlla dindil. ñu bëgg sunu kilifa diine yi luñ ci ndaw ndaw doon ay sët. bëgg sunu kilifa aada yi bëggante ki sunu biir ndax mooy jàmmi Sénégal Sénégal mi ngi gësa mu de mbokk allo. allo. asalaamaaleykum. waa allo. soxna si nañ la tur bi naka la fooy wootee. ma Richard Toll laay wootee kooku sama doomu bàjjan la. sa doomu bàjjan la. sama doomu bàjjan la Babacar Diaw. kar <laughs> Diaw. waaw Babacar Diaw moom. waaw moom laa soxla Ndeye Kumba Ndeye Kumba yaag Babacar ku ci gën a bëgg ceebu waalo. laa yaay la laa ma ma sant ma macha allah macha allah <laughs> kontaan naa lan la yàlla lafal cat. jàll ba Diaw Fara Diaw Fara. amiin Ndeye Kumba. Diaw Fara yan la yàlla lafal cat. doomu nijaay ak doomu bàjjan la. waaw yal na ko yàlla jàppale ndeysaan yal na ko yàlla jàppale ndeysaan amin yal ko yàlla suturaal allahuma amin jërëjëf Ndeye Kumba ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu waa Waalo yëpp sama xel dem ci Fatma Ndiaye madame Diaby ma koy nuyu bu baax moom tamit ma nga foofu ci restaurant Serigne Fallou ba nekk ca diwaanu Rosso ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di ziar képp koo xamante ni yaa nga foofu ci région di fleuve rek di la bàyyi xel bu baax tey seen doom la ñu indi mu jóge ba Ndar wax naa leen waa Paal waa Raw waa waa waa Sàkkal waa Louga ñoom ñëpp nañu ñëw ci émission kër gi ndax kenn ku ci nekk da ngay ñëw rek pour ñu dolli te am na yeneen yoo xamante ni day bëgg nañu ñu jàppaleñ ci ñu def ko mënatuñ ko nag ndax euh, xëy na peut-être âge beeg ñàkk wér gi waaye nag euh, sañ nañu xale yi ci kër gi il faut am loo xamante ni day am relève te formation bi fii lañ koy doore te faw dinaa leen indi fii bokk ak ñoom émission kër gi ndax du wàññi ci sama daraja dara oustaz Euh, ci wàllu xeetu ndimbalante boobu xam naa ni ci lañuy ñuy jeexale suñu émission ndax ñu ngi ñuy def signe. Hmm. Euh, nit ki bu fekkente ni dafa feebar. Hmm. toog benn place nag ku ko mën a jàppale na ko jàppale bu ko xool ne ko diw am na ko wala mbokkam am na ko. nit ki bu fekkente ni dafa am gàllankoor. nit ñi ñu ngi leen di génne luyaas ay huissier da ngay gis seen mbokk yoo xamante ni ay autorité lañu gis seeni mbokk yoo xamante ni tey euh, léeg-léeg nga gis ku dëpp ci nam sax di dox ci mbedd mi. génn daje ku kenn ku mel ni Mbaye mu ne ko man day Cheikh tey jii bu dul wonteeg man wala bu dul wonteeg sama beneen caméraman bi xaw ma nu mu tuddati wala ñoom Ibrahima jaane bu dul wonteeg Ibrahima jaane tey jii sama cin du tàkk te fekk na boobu Ibrahima jaane jànni na seen waa kër yulli ay poosam génn ci biti mais Samba àllar gi moo ko gënal ci biir kër gi te mi ngi ci biir dëkk bi loolu il faut nga waxal ma ci parce que dama ko gis tey. loolu yàgg na fi. Mhm. mi ngi ci kër yi. Mhm. te léegi nag dafa dafa empiré wu. Mhm. ñàkk yërmande googu mm. fab sa alal jéggi sa ay mbokk mm. xañ ko sa ay mbokk bopp mm. bëgg ñun la waa góor ci koñ bi mm-hmm. léegi loolu moo ëmb adduna fii mu toll nii dëgg la non seulement dañ la koy xañ joxunu la ko mm-hmm. waaye di ca teg ay kàddu ya nga xamante ni ñàkk xañ ba naqadi na la benn. Mhm. waaye kàddu yañ cay teg. moo lay rey mooy moo ren pour rendi la nag léegi bàyyi la. nga nga ñu suul la masaale la. kese daal di indi nag wu rëy ak poset bu toll nii jug leen ñu dem ni taabal ji bokk ko lan mooy li ci war. waaye jublu woo ci dara lu dul jaxale autorité ya war a jóge ca kaw. waaye ba tey. Hmm. doom yu baax ya ya baaxoon. waaw ba tey ñoo ngi baax. Hmm. deret yooyu. Hmm. ñi ngee law di baax ba léegi. ku ci mel ni binti rasul sa sa sa sa. ah macha allah sa sama jigéen. sa jigéen sa jigéen sama jigéen sama jarbaat. ndeysaan lii ma sol moo ma ko ñawal ci gàmmu gi. ndeysaan Bintu Rasul Ndiaye. moo ma yóbbu màkk. moo la yóbbu màkk. moo ma yóbbu màkk mu borom këram Moustapha Diop. jamu la. ñooñu bu may wax si ñoom. Mm. damay mën naa jooy wala ma wax sax ba wax li may wax. moo tax ma bàyyi ba nga mujjeel ko mu des cinq minutes ñu waxtaan suñu soxla. gis nga bu ma lay wax nit ku baax. waaw. li ngay wax naan sàmbaalaar. Mm. ñooñu du ñu ay sàmbaalaar dalu leen. gis nga bintu rasul mm. soxna papaam tawat na mm. ba jaaxle mm. mu waxtaan ak Moustapha bintu amul te loo ko wax mu ne man aw ma sama jëkkër rek laay laaj dëgg la xaaral ma laaj sama jëkkër faj na soxna papaam te léegi ana kan moo fi xam nga kooku ndeyam moo baax mm-hmm. Faat Ndiaye mais sa Thiès dëgg la doomu meer nguy ndeysaan ñoo ñoo baax ndeysaan famille boobu ñoo ñoo baax mm-hmm. ndax saañ du xeeñ lu may lu mu lu mu ub ba ñu nekkee Thiès yor fa daara meer nguy ñunu uufoon moom njabootam la boole nu ci biir këram di jëflanteeg ñun mbaax ni ndey ju baax di jëflanteeg njabootam doon na ko jëflanteeg ñun te ku la yóbbu màkk defal na la lu rëy looloo wéy nag ba bint rasul mm. continuer teraanga jooju muy la am solo yemu si nag temps bi jeex na macha allah temps bi jeex na ñu koy jaajëfal bu baax a baax soxna Bintu rasul Ndiaye bu Moustapha Diop di ko ziar ki la yóbbu mag deselatu la dara ndax biyey màkk yi day bari ci say loxo nga dem ki sa néegu ndey néeg sa néegu baay dem ki sa néegu bàjjen doo jéem a seet ñoo ci defal te loolu mi ngi fi ne gàññ en tout cas seen mbaax Euh, doyul ñu ngi leen di gërëm di leen sant leen jaajëfal di la bàyyi une minute nga tàggu waa Ndar une damay ziar sama imam Taalibuye Fall Taalibuye Fall nga xamante mooy sunu jëwriñ ndeysaan ak njabootu xulaam yëpp mhm. maa ngi jël sama ziar teg ko ci loxoom ndeysaan samay soxna mhm. Karo Diouf xujjandooy mhm. mook seen waa ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal samay jigéen ki mag ba ki gën a ndaw maa ngi leen di ñaanal yàlla di leen gërëm di leen sant di gërëm nag sama ñaari mbokk daara waaw Abdou Aziz Fall docteur ak Ahmed Fall jërëjëf ak sama rak. Mm. ab Abdallah Diop. Mm. ñooy jëmm yi nga xamante ni ba ma jógee ñoom ñoo dagg paas yi oto yi ma indi de Saint-Louis a à Dakar. à la 2STV. waaw ñoo si seen alal ñu. pour ndimbal kese ñooñu ñoo jëf loolu muy lu am solo sama jigéen nañ ci biti toog mm. ndey tabaski ba mm. ak sama jarbaat mëyaa jërëjëf ñoo ñëpp pour wéttali sunu ñu ngi leen di ñaanal yàlla jërëjëf yal na yàlla fay leen yal na yàlla fayal ñu leen ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaar di kontaan ci ñoom ñu waa Ndar yëpp euh, ndax lii mu indi ay njàngat la yoo xamante ni ci biir néegu sëy euh, wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk war na caa mën a jàpp pour jariñoo euh, déggin am ku wéral lii am ku wéral leneen pourquoi pas ñu jàkkaarloo ah. toog waxtaan ko lu tax ñu wéral ko parce que nag c'est ça kër gi Euh, kër gi noonu la te kenn ku ci nekk am nga ci wàll donc maa ngi lay gërëm bu baax di la masawu coono bi di ñaan itam yàlla na la yàlla teg ci yoonu jàmm ba nga delluwaat ndar ci jàmm ak salaam fekk fa waa ndar ñoom itamit ci jàmm hmm. gërëm équipe technique bi nga xamante ni moom la àndaloon waaye remercier Pape Gueye mi nga xamante ni moom ma defal patch bu baax bi nee naa leen numéro bi dama koy bàyyi ci portable bi waaye képp koo xamante ni soxla nga ko rek euh, nga koy woo ci da nga may woo ci 77 534 91 25 mu defal la ci yu baax yu féex yi su ko defee rek euh, nga daal di am jàmm mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa fi amaanillah jaa ngeen jëf